mais suba war na mën a dem ba Malika dem feneen ak feneen ba nga xam ni dina mën a war ndakaaru yëpp mais yéene bi ñu am mooy ni ko ndakaaru amee tey bu muy lu jiitu ci Afrique ñu mën a wax ci ay at yu néew yeneen région yi dañu ko mën a am moo xam Thiès la moo xam mbuur la moo xam Saint-Louis la moo xam fenn Kaolack la moo xam feneen ak feneen loolu mooy yéene bi nga xam ne am nañ ko ci Sénégal te incha allah loolu lañu tëral li ñu def ci plan Sénégal émergent bi nga xam ni bëgg nañu bu soobee yàlla ñu mottali